nekk njàngale mi fii ci diwaanu Sénégal di Moustapha Maba Guirassy moom mi lee daal dina xamle bés bi nga xam te ne moom la ñuy daal di amal ubbi tepp l'école gi ci anne deux mille année scolaire 2024 2025 bi ñu daal di dëgmal euh, ñi pour lu ñeel ñi nga xam te ne ñoom ñoo di jàngalekat yi waaye itam euh, ñii di élèves yi itam di ndongo daara yi jàppale ne kon reprise officielle bu personnel bi nga xam te ne moom moo di enseignants yi ak administration bi itam ñoom ñi lee dinañu daal di dellu ci l'école yi ñi ki euh, alxames octobre atum 2024 bu juróom-ñetti waxtu ci suba jotee maanaam 8 euh, heures ci suba ñi nga xam te ne ñoom euh, ñoo ndongo yi moom eh, niki altine juróom-ñaari fan kon ci weeru octobre boobule bu 8 heures ci suba jote lañ fas yéene daal di dellu si classe yi ngir door année scolaire bu 2024 2025 ñu daal di wax si leneen ba tey ci gàttal élimaanu jëwrin yi di Ousmane Sonko daal dina taxawal benn commission boo xam ne moom moo war a daal di càmbar lu jëm ci wàllum contrat yi nga ne moom la nguurub Sénégal daal di xaatim si digganteem ak ñi nga xam ne ñoom di partenaires yi lépp dox ci li nga xamante ne moom moo mbirum pétrole ak gaz bi feeñ fii ci réewum Sénégal jàppale ne kon constitution commission boobee dafay daal di dëggal euh, digue bi nga xamante ne moom la ñu daal di askanu pour Sénégal lépp jëm ci saytuwaat li nga xamante ne moom moo di contrat yooyee ñu fi xaatimoon li ngir lu jëm ci wàllum exploitation pétrole boobee te kii di Ousmane Sonko daal di woon ko def ci ay jamono kon accord yooyee nga xamante ne dinañ ko daal di réviser maanaam saytuwaat ko dina daal di porter ci maanaam dina jëm ci lu jëm ci wàllum pétrole mine euh, euh, ak fiscalité euh, ci buñ sukkandikoo ci limaanu jëwrin yi di Ousmane Sonko ñu àddu jëme ci leneen wax ci tukkib nemmeeku bi nga xam te ne moom la njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di defoon ndiki démb fële ca euh, dëkk bu sell ba di Touba lépp jëm ci wàccaayu màggal gi nga xamante ne ñoo ngi ko daal di dëgmal niki ajjuma bi war a yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi ñu daal di nekk moom bi li nag ci kàddu yi nga xam te ne yëkkati na ko ci euh, kanamu euh, kii di xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bokk na si ne dina fexe ba ñu daal di saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wa di jànkonteel ngir jote ci ndox mi ñu waseene daal di jëfandikoo waaye itam assainissement ba nga xamante ne moo ñeel lii di dëkk bu la boobee di Touba yaatal yi ak Ablaye Dione ay fan des pour ñu daal di suubu ci li nga xam ne le moo di màggal Touba muy màggal gu mag a mag buy jëmmal Serigne Touba ak jëf yi nga xam ne daal di na ko jëf ngir taalibeem yi rek mën a nekk ci conditions yi normal li ni mel nag tax na ki nga xam ne ne moo di Bassirou Diomaye Faye daal di dem ca bërëb bu sell boobee nar a séq ak waxtaan ki nga xam ne ne moo di Serigne Mourtaka pour ñu xool nan la ñuy def ba li nga xam ne ne moo di màggal gi mun a jaar ci yoon ci loolee nag moom mi nga xam ne ne moo di Bassirou Diomaye Faye daal dina ànd ak ki nga xam ne ne moom la ñu wàllum ak wàllum ndox pour ñu xool nan la ñuy def ba joyanti ndax looloo nga xam ne de moo di ndox mi sonal na bu baax a baax ñi nga xam ne ne waa Touba ci li ni mel nag moo tax Bassirou Diomaye Faye daal dina fa joxe ay promesse yu takku ne nag dina fexe tout ba màggalu ren gi daal di wuteeg yeneen màggal yi moo tax mu daal di teg ay conditions te jëm ci wàllum assainissement ci li jëm ci wàllum ndox ci li jëm li nga xam ne de moo di conditions yu ñu nar a nekkee ci biir Touba ci loolee tamit ki nga xam ne de moo di Serigne Mountakha daal dina koy jox ay kàddu ne ko yébbal la ne ko nag dama bëgg nga bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo la ak ñi nga xam ne sax voté wuñ pour yow ndax fi mu toll nii nekkatoo Bassirou Diomaye Faye waaye Bassirou Diomaye Faye yu wi ñëpp nga ci loolee tamit ci condition yooyu nga xam ne moom na doon waxtaanee moom ci même heure ñi nga xam ne moo di taw bi mu ngi doon wàcc biir Touba nekkoon taw yu takku lool ci loolee nag ñi nga xam ne ñoo fa daal di nekk doon génnee ndox mi di fexe Touba daal di ko as ci seen biir kër yi ci situation yooyu la waa Touba daal di nekk waaye nag terewul Bassirou Diomaye Faye ni na dina fexe ba lu ni mel du daal di amati waat benn yoon ci biir Touba ndax waa Touba moom li nga xam ne moo di ndox ñu des ba tey si lu soxol dëkk bu sell boobee di euh, Touba ak euh, jafe-jafe ya nga xam ne moom la ñuy daal di jànkonteel lu jëm ci wàllum assainissement ak yeneen yi ni ci daal di wundu yépp euh, kii nga xamante ne moom moo di docteur Moustapha Diop nekk ab géographe urbaniste waaye itam di ab bindkat moom mi lee la mu xamle moo di ngir ñu mën a saafara li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yooyee faw ñu jël ay mesures rawatina lu jëm ci wàllum aménagement te itam ñu teg li nga xam ne moom moo di ab plan tourisme bu ñu fas yéene di jëfé fofé ci dëkk bobé di Touba mom mi leen ñu ko dal di invité woon ci biir émission bi di Kenkiliba fa la ci suñu naataango yu di RTS ñu teewlu ko. waaw loolu mom loolu première question moy euh moy jël ay mesures jël ay mesures dëkk bi comme c'est bien aménagé en termes d'exemple mais aménagement comme ni ma ko waxé légui du ay du ay parcelles rek par exemple da ngay assainir viabiliser def lépp nit ñi mën a dëkk ñu mën a. am nañu un plan d'urbanisme Touba. amoon na un plan d'urbanisme en 2006 dégg naa temps yi nii yu mujj yi am na boo xamante ne sëñ bi ñu ko initié mais problème mu plan d'urbanisme une fois de plus de poser problème parce que si mën nga établir plan ça xam nit ñi ça sert à rien tu gaspilles de l'argent ça ne sert à rien moi je me rappelle quand j'étais en maîtrise d'un travail sur sur programme bo xamantene seigne salu moko pour euh, créer des logiciel bo xamantene bu bi ultime bi créer agence de gestion urbaine mm-hmm. mais xam nga sëñ sëñ Saliou investir ci xaalis bu bari investissement en terme de image satellitaire dafay enquête pour adressage yooyu yëpp ci lañ ko defee surtout ba pour suivre mais problème bi mooy li ñu am comme jafe-jafe mooy nit ñi duñu duñu encadrer. ñu wax ci leneen ak conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA nga xamantene dal dina jox ab app gu tollu ci fanweeri fan jagleel ko ñi nga xamantene ne ñoo di éditeur distributeur diffuseur conventionné euh, ngir lu jëm ci li nga xamantene mom modi moo média yilé nga xamantene dañuy dal utiliser technologie bu mu mënti doon ngir ñu waccu ak li nga xamantene mom modi euh, li règlement bi euh, dal di santané ngir tontu ko mom wa CNRA nak ñi di association des éditeurs de presse de la et professionnels de la presse presse en ligne di appel ñoom ñi lee daal di nañu bind ab bataaxal di ab communiqué boo xam ne ñoo ngi si daal di sàkku ci ñi nga xam te ne ñoom ñoo di waa CNRA ñu wàccoo d'abord ñu daal maanaam en jour li nga xam te ne moo di CNRA boobee teg ci itam ñoom ñi lee di appel ñu ngi jàpp ne ba tey ñii di waa CNRA dafa daal di kaddu sax te sax ne ñoom ñi lee mënatuñu daal di assurer li nga xam te moo di régulation secteur boo xamante daanaka numérique bi daal na ci imposer ba noppi ba tax association euh, boobee di appel ñu ngay daal di ñaan itam ñi nga xam te ni ñoom di membre yi nekk ci biir kuréel boobe yépp ñu bañ a daal di jëfee li nga xam te ne moom moo di euh, càkkuteefu CNRA googule Binta Gaye ci yaatal conseil national de régulation de l'audiovisuel madame Senerami, mi di fàttali article 94 bu que loi bi fukk fan ak si juillet 2017 jëm si le code de la presse BEP éditeur distributeur diffuseur si wàllum euh, communication audiovisuelle Madame la technologie booy monte jëfandikoo am nga si diiru def ap déclaration euh, nous co règlement bi daal di tërëree dooree ko fan ak juróom ak ñeent ci weeru août atum 2024 association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne manam. Courir euh, bi tank euh, presse en ligne bi ñu ngi daldi di àddu ci ab communiqué seen mbégteel jëm ci euh, yéex yéex bu sénéra daldi di yéex leen ko yégal teg ci ne kuréel boobule amuloon na fi ay waxtaan ak radio télévision traditionnelle si weeru février atum 2021 et boole wuñu si éditeur bu presse en ligne yi lu ci mel web tv web radio si ap waxtaan yooyu lee kuréel bu tënk wàllum presse en ligne bi mi daal di woo bépp acteur bu jëfandikoo wàllum digital mu bañ a wéyee ndigal yooyu lee ci mu tënku si article 94 bu code de la presse ndax loolee mënuñu ko appliquer jamono jile bureau exécutif national appel mi ngi daal di volontiers volontaire bu mu am ngir wéyee si sart yooyu lee wante mi ngi ñaan ab régulation ngir ñu adopter si contexte numérique boobu lee fii léegi fanweeri fan maanaam weer ñu wax ci lu jëm ci wàllum wér yaram ak feebar bii di hépatite B nga xamante ne daanaka jamono ji mu ngi woy di law ci li nga xamante moo di ci askan wi te itam bari na lool loo xamante ne jamono ji ñoo ngi koy daal di sooxaale feebar boobu nga xamante ne ab maladie sexuelle la mën nañ ko daal di euh, wàll ki nga xamante moo di partenaire am bi ñu daal di seqee li nga xamante ne moom moo di ni mel waaye itam donte sax feebar bu garaaw la lu ñu mën a faj la rawatina fii ci biir réewum Sénégal nga xamante ne garab yaa ngi fii yaatal yi ak docteur dikkaat ak ñun ci lu jëm ci wàllum symptôme ak li ci maladie boobule. Euh, feebar la boo xam ne dafa bari façon hépatite. hépatite B moom moo gën a sonal sénégalais yi en tout cas li koy indi mooy euh, maladie sexuellement transmissible la maanaam feebaru sëy la euh, jigéen bu am hépatite ci biir sécrétion am yi mën nañ gis ni que euh, mën na wàll nit mën na wàll partenaire am góor bu am hépatite aussi sécrétion am yi na wàll euh, partenaire am euh, wàll bi aussi mën na nekk ci deret ak deret il faut dire que dafa am ay population yu wax population à risque population à risque mooy population yi nga xam ne ñoom ils sont très exposés comme par exemple agent de santé yi nga xam ne ñoom tout le temps ils sont en contact ak maladie so xolé aussi étudiant médecine pharmacie odonto etc. cetera ñooñu aussi ils sont tout le temps en contact ak kii laborantin yi bon ñi nga xamné aussi usager de drogue lañ moy manam ñi nga xam dañuy jamu pour pour pour pour droguer wu. hépatite fièvre reste la reste bi mu ngi nekk ci côté droit wu nit ki côté droit bi un peu ci kaw ci suufu côtelette yi touti xam nga donc feebar boobu sol na la nga am hépatite moo tit bi moy am na inflammation manam newi newi au niveau du foie léegi yàlla def na ni am nañ garab fi Sénégal buñu wax euh tenofovir xam nga tenofovir garab la bo xam mom lañu utiliser pour ñi nga xam porteur chronique lañ te ñi nga ils sont éligibles à un traitement bés bo défé sa test xam nga ni amulo virus hépatite bi demal nga vacciner. wu mën nga def test buñu wax antigène HBS soko défé su fekkee amoo virus bi foofu nga war a dem vacciné wu mën nga xool aussi anticorps yi parce que virus bi mën na jaar ci yow doo ko xam après nga éliminer ko nga dese ay anticorps maanaam euh, organisme bi créé ay anticorps mais dafa am lu ñuy wax taux protecteur waaw dafa am taux boo xam ne moom su nekkee sa yaram tu es protégé mais soo amul taux boobu le virus bi nga vacciné Sénégal un engagement personnel ministère de la santé gouvernement et tout jël un engagement à la naissance donc di taxna ba mbir mi parce que y important la wara 2017 population bi virus bi yor ko s'en nat ko yor sen vaccination be bonne pratique yu entre 6,3% et 6,8% donc kherbi euh, vraiment porte le plus xibaar yi bitim réew yi ñu daal si tàbbikoon doore ko fële ca réewum république démocratique du Congo nga xamante ne daanaka mooy épicentre mondial bu feebar bii di variole du chien du singe nga xamante ne jamono ji bëri na lool itam ci eh, lii di àddina wërngal képp foofee ca dëkk boobee sax jot na fa faat lu tolloo ko juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki doomi aadama yoo xamante ne yu ko amee woon la ci eh, fukki junne juróom benn ak juróom-ñaari téeméer yoo xamante ne eh, daal di woon nañ ko détecté ci seen yaram depuis ndoorteel ñetteelu année bile euh, ba tey euh, tax na ba autorité jog taxaw temm ngir daal di fa jëlee li nga xam te ne moom moo di feebar boobe euh, ci province yépp ba ci sax capital bi di kin Kinshasa kon dàpp leen ne ñu bëree bëri daal na ko fa daal dinañ ko fa amee jamono ci ni ki démb kon tax na ba jëwrin bi yor wàllum wérgu yaram foofee ca réewum RDC boobee daal na xam le ne teg nañu ab plan de riposte boo xam te ne dina mën a tax ñu daal di jàmmarloo ak lii di feebar boobe boo xamante ci lu tolloog ñeenti euh, juróom wala bokk ñeenti fukk ak juróom-ñeenti téeméeri millions yi dollars yoo xam ne fas yéene nañ ko si daal di dugal te lii de boolewuñ ci sax vaccin yi nga xam ne ay réew fas yeneen nañ leen ko may ngir ñu xeex ak jàngoro googule ñu dem fële ca euh, réewum Afrique du Sud juróom-ñeent fukk ak juróomi doomi Libi ya nga xam te ne daal di leen génne ci réew moomee di Afrique du Sud ginnaaw euh, seen arrestation maanaam bi leen tegee woon loxo weesu nag ñoom ñi leen nekk daa dañoo daal di duggoon ci li nga xam te ne moom moo di ci réew moomee eh, di eh, république démocratique wala bokk di Afrique du Sud te ñu jàpp ne anam yañ ci daal di duggee woon teguwul ci eh, yoon te li ni mel dañoo daal di defoon ay fausse déclaration ñu daal di jàpp ne sax ne ñoom ñi lee euh, dañu dañoo waxoon ne ay étudiants ba taxoon ñu daal di leen a bàyyi ñu yeeg ñu euh, daal di dugg ci réew moomee ñoom ñi lee sax daal di nañu yegsee fële ca Benghazi ni ki dimanche bi ñu daal di euh, weesu kon autorité sud africaine yi kon ñoom ñi lee daa ñu ngi doon sax déggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ab camp militaire secret bu nekk fële ca ville bi di White River nekk ca région bu Mpumalanga jege lool frontière bu réew Mozambique ak eswa tini fofé ci Libikon danak élément yépp ñu ngay daldi di wane ne ñoom libyen yooyee nga xamante ne ñu ngi leen doon ñu ngi doon suivre ben information sécuritaire clandestine euh, poussée danak ñu ngi bokku ci ben camp euh, libyen bo xamante ne euh, kii di maréchal Khalifa Haftar moko daldi jité di ñu daanelee xibaar yi kon fële ca Gaza kon défense civile bi moo ngay daal di xamle ne ni ki tey ci talaata bi yemoo ak ñaar fukki fan ci weeru août bi jaare ko ci wala bokk ci benn bilan bu njëkk daal di nañu dégager lu tolloog juróom-ñaari corps maanaam ay néew yoo xamante ne daal di nañ ko si wëññi ci euh, bokk ci ñoom juróom ñi nga xamante ne ay euh, góor lañu ak yeneen ñaar ñoo xamante ne ay ndaw lañu te li ni ñoo ngi ko daal di wëññee ci benn lekkool boo xamante ne mu ngi nekk nga xam ne ay junni junni doomu aadama yu déplacé ñoom ñoo fa nekkoon di eh, dund ci eh, li nag ñu ngi daal di faatoo ci benn frappe boo xamante ne ñii di waa Israël ñoo ko fa daal di def ci buy sukkandikoo eh, ci kii yore seen kàddu di Mahmoud Bassal te mu jox xibaar bi ñii euh, di agence France euh, euh, agence française de presse di AFP mbokk yi kon filé la ñuy daal di jaaree buural jotaayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci téwlu bi jox leen dig dajé ba ëllëg si beneen jotaayu xibaar ja ngeen jëf.